votre chaîne Gekor TV Gekor TV une chaîne télémédia bi pour vos reportages des émissions couverture médiatique vos publicités Gekor TV indil Nalen Lubes. avec une équipe pétrie de talents médiatiques Gekor TV un autre élan de la médiation sénégalaise partagez et abonnez sur votre chaîne Ngekor TV alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala man ursila rahmatan lil alamin ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam di nuyu mboolem ñi nga xamante ni ñoo ngi déglu di yëgle takkusaanu sëñ Babacar bi ñu aadawoo di amal fii ci maa ngi Xoox samedi bii di ñëw mooy troisième édition ci njiitalu euh, Alhaji Mamadou Diouf di se président daayira soppey sëñ Babacar ñoo ngi woo mboolem jullit ñi laa siyama waa Kampang Ngexoox laa siyama waa kër Alhaji Ibrahima Sakho si njiitalu sëñ Habib Sakho di xalifa bi ñoo ngi woo sëñ Pape Sakho ak sëñ Xaasim Sakho ñoo ngi woo tam imaam ratib yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Kampang Ngexoox ak li ko wër imaam Mouhamad Doud Sarr ñoo ngi woo imaam Alassane Mbaye ñoo ngi woo imaam Mouhamadou Lo ñoo ngi woo imaam Dia imaam Mouhamad Dia imaam Ratib quartier Garas ñoo ngi woo imaam yëpp ak sëriñu daar yi di leen yëgal takkusaanu sëñ Babacar bi ñuy amal fii ci Cap Mangué-Xoox di ci woo kilifa diine yi di ci woo région de Thiès département bu mbuur la siyam waa campement Ngé di leen ko yëgal kon nag yëg leen bés bi seen bés bés la Takusan bi seen takusan la takkusaanu Sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu kon nak mbollem keru dini kilifa dini yegal nañ leen mboolem islam yegal nañ len takkusaanu sin babakar si biñu amal fisika ci kam mangé xox kon nak ñi déggé ko noonu ñu xamé ko nonu ñoo ngi wo ñepp goor ak jigen mag ak ndaw bu len tardé su ngeen tardé lu bari de len recc ndax takkusaan bi nga xamanteni borom xam-xam lañ ci magal way ñu tuddé ko ñu duppé ko Alaaji Ibrahima saxo mi nga xamanteni ñepp xam-xamam ràññee nañu wa waye ràññee nañu abassa biñu amal fisika ci mangé xox ndax de doon satal islam di suuraale Islam, waye di yok islam bo muy def concurrence ak wa popungin bo muy créer fi takusan bi nga xamanteni dañ ci def salatu tasbih kon nak koku suñ ko tuddé bis yalla def na lu wor waye suñ ko tuddé bis kam mangé xox delloo lañ ko njukkal motax tax islam islaam kiru diine yi ñoo ngi leen الإسلام يكون اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ألا أعظم ليلا ولادة حسبة إذا لم يكن نحو الحرام عدول أه، مبكي كم نكو إمام وخيرك نون لنكو وخي تكسانو سيد أبو بكر سي رضي الله تعالى عنه دائرة سوب سين بابا كرسي بو كامب مانجي خوخ ديكو عمل في جي إيكول 3 شاء الله أه، سيد محمد المصطفى مبوك بو سين بابا كرسي moo war a def waxtaan wi group sop sëñ Babacar si bu Serigne Moustapha Mboup ñoo war a yor animation bi euh, di kilifa gunu baax di ko yëgal euh, Sidna Alin bu Serigne Paate bu Serigne Babacar si nekk ca Boxo nekk ambassadeur ba Aboubacar si radiallahu taala anhu Cheikh Daouda bu Mam Alpha Combaan bu bu Serigne Babacar si euh, waaye nag ku ne daayira sopp sëñ Babacar si Euh, ñu organiser tàkkusaanu sëñ Babacar si thème bi kan mooy Seydi Babacar si loolu lu rëy la kon message baa ngoog le trois incha allah fii ci école bi incha allah ku tarde incha allahu doo am place ma zalika ala allahi bi aziz wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bismillahi rahmani rahim si ndigalu président bi Mamadou Diouf ñu ngi fàttali mbooloo mu daayira yëpp yi nekk si biir campement Ngexoox daayira hadratul malikiya dairatu sop serigne babakar si dairatu Sulayfal, dairatu Alajuf, diouf dairatu sop serigne nab sopp serigne babakar bu somon dairatu sokhna aisha daira mam daba diouf ñom ñep ñu ngi leen di wo ci bëss bu mag bu bëss bu tedd bi ni nga def le 3 fi a ngexo alhamdullah assalamu alaykum ma ngi nuyu ñep di ziar ñep ah ginnaaw ba ñu woowee suñu guide religieux yooyu woo suñu daayira yooyu ñu ngi ciy teg suñu responsable politique yi nekk ci dëkk bi ak li ko wër di ci jiital suñu honorable député maire Pape Songo Diouf le premier magistrat de la ville et le premier parrain de cet événement ñu ngi ko ciy woo moom ku ne xam na délégation bi mu àndal jartalim donc ñu ngi koy woo moom ak délégation boobu nga xam ni dañu ànd ak pastif di ci euh, responsable politique Malik Gueye responsable grand parti ñung koy wo di ci wo Cheikh Diouf responsable politique di ci wo ababakar mbay si ku ne xamna mbay si ci tarixa bi di opérateur économique ñung koy wo di ci wo le ministre aloun Sarr sous couvert de Balla si responsable politique di ci wo le maire de la commune de Somone monsieur Salif Diouf di wo le maire de malikunda Maguette sen sous le haut responsable de Murtala Lo di aussi madame Nogaïsek, Sek, premier adjoint de la commune de Ngekor di aussi M. Amdilou, deuxième adjoint de la commune de Ngekor di M. Eliman Fall conseiller di aussi Mustapha Dangoura président commission domaniale la commune de Ngekor di woo aussi madame Rokhaya Daba Ndiaye responsable politique ak Ngeko di woo monsieur Madani ku ne xam na ko ci sport bi donc ñu ngi koy woo di woo aussi Abdou Abdou Aziz Diop muy naataangoom aussi di responsable politique ñu ngi koy woo diwoo aussi monsieur Pablo nga xam ni ñu ngi yëngu ci zone bi ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp di woo ah képp koo xam ni rek yaa ngi yëngu ci sport fii ci Ngeko ñu ngi lay woo ci suñu tàkku tàkkusaanu sëñ Babacar si bii di woo aussi euh, madame Cheikh Marem Ka responsable politique ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp nodda wuro mbay danil naaɓe mbiɗa nodda quartier sum mbiɗa nodda dayiraji ɗi gonɗe campement gue ko fof haalpulaar en min dañi kiikiɗe e seigne babacar sy dayira mod diouf hedde école 3 mi noddi o kala gonɗo pullo mi noddima dayira amen he bisimillahi rahmani rahim ñu ngi nuyu waa campement di leen yëgal suñu takku takkusaan sëñ Babacar bi di ko waajal ci la 3 ñu koy def ci buntu kër Modou juuf ñi wax ñëpp nag euh, ñëpp ñu fi nekk ci Kàmmaangexoo ci daara yi ñu ngi leen di woo takkusaan sëñ Babacar la ñëpp ko moom xewal baa ngi fi na nit ñi ñëw jël ci xewal bi may woo Mamadou Sow responsable maa ngi koy woo mu ñëw wuy si ñu di woo ñëpp bàyyi ñu kenn ci ngexoo daare yeb nan ñew mbaadi manikol ngal berkili ma xani mo bulaji satan seydi ñol awa kebe ñol ngal bekili ha ah, atel be ngal invité ñi takusan seigne babakar mo be nana nga nana fataaji may wo samay chamagne may wo abib saxo mu deg mo bu baax ci jotaay bi di wo tamsir mang koy wo di wo eumet saxo mang koy wo di wo aisha mang koy wo mu ci bëss bi di wo mbeyte di wo aja bëgg na ngeen tew ci bëss bi may wo aji ñass yeen ñepp ñew leen taxaw seen jigen yeen la fi am yene sama mbokk bëgg na jotaay bi ngeen ñew téwal mako subhanallahi bismillahi mina rajim bismillahir rahmanir rahim ma ngi sant yalla di julli ci yonent bi ci nuyu ñepp ku nekk ci sunu daayira soppe señ babakar ma ngi jital nuyoo bi nak ci sunu président Modou Diouf teg ci wa kërëm sa saaxo mi tok ak rakam daba fay ma ngi nuy ñepp bayuma kenn di nuy su camp ma ngee ko xep bayuma kenn di wo samay wa kër samay waa dëkkandoo mbuur tëngéej dakar bayuma kenn ñepp bëgg na ñu fekk ci sunu conférence bi le 3 bu soobee yàlla ak yonent bi ma ngi leen koy ñaan ci jëmi rasulullah ñam ñepp nañ ñew ma ngi sant yalla di julli ci yonent bi gattal assalamu alaykum wa rahmatullah ah mbokk jullit yi eh, ñu ngi eh, préparé benn xew-xew bu mag fii ci campement Ngexoox eh, comme sama naataango yi nuñ ko waxee daayira bi nag dafay daayira boo xam ne alaaji Habib Sakho bi muy def pose première pierre ci benn juma fii ci sunu koñ mooy juma ñoom càndum bi ci lañu wax ne nañu taxawal daayira bi ndax fii war na fa am daayira boo xam ne day dundal tarixa bi keroog bi mu ñu ko waxee ci lañu toog waxtaan taxawal daayira bi daayira bi bi ñu koy taxawal suma papa Alaaji Gay suma papa Jooj Diouf sama papa sama ak Oustaz Diouf ak Adama Gay ñu ñoo taxawal daayira bi biñ koy doxal ak léegi yàgg na def nañ ci trois éditions muy bii ñun nag ñi ngi woo ñëpp bon daayira bi aussi dañu am jukkal ak bu ñuy defar Baye Alaaji bu Saaxo parce que Baye Alaaji bu Saaxo bu dul dara ñun xam nañu ñun ñi nga xam ne yàgg nañu fi li mu fi def ci Kàmmange xoox ak li mu dundalee tarixa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif fii ci Kàmmange xoox gis nañu ni mu taxawoo aussi diine ji ci Kàmmange xoox te it muy koo xam ne am na lu bari loo xam ne ñun fekkee nañ ko fii ci néew ci as taw ndax 69 lañ fi ñëw 1969 lañ fi ñëw mais biñ fi ñëwee gis nañ fu ñuy def loo xam ne ne ci tarixa bi ci Ngeexoox vraiment ñun amuñu lenn lu ñuy wax lu dul jël bis bi duppee ko ko màggale ko ko ndax wax dëgg yàlla def na ko ci campement Ngeexoox moo tax ñu bëggoon euh, wax waa campement yépp bu kenn manqué waaw am na kaamil nag bu ñuy wàccee ci jumaa ji à 9h. bëggoon nañu nag muy samedi ci bis bi à 9h bëggoon nañu nag ustaas yeeg imaam yaag ñëpp ñëw ci kaamil bi bu ñu wàccee kaamil ba ba pare ci ngoon gi 5 heures le programme bi di commencé ba 23 heures ñu ngi wax nag waa campement. man fàttewuñ kenn suñu mbokk ngariñ yi am na daayira bu nekk ngariñ ñu ngi koy woo daayira sopp sëñ Babacar bu nekk ngariñ ñu ngi koy woo pour mu ñëw ci bis bi ñu ngi woo ñëpp képp kuy jullit te nekk ci département bu Ngexoox bi ñu ngi lay woo euh, ci département Mbour ñu ngi lay woo pour nga ñëw ci tari ci sunu tàkkusaanu sëñ Babacar bi maa ngi jéggalu ci kàddu yi su ma juumee ak jërë ngeen jëf xamul ñoo fàtte. sëñ Jili Mbacke mbokk ma ma waaw ma ma ma ciy dolli ci gan yi nga xam ne dañ fi war a ñëw ci tàkkusaan bi sànq rek la ñuy jokkoo muy Serigne Djili Mbacke bu Daaru Minam Daaru Minam waaw Serigne Djili Mbacke bu Daaru Minam war na ñëw incha allah ajjuma sax lay ñëw pour jullee fi juma waaw Chérif Alfoussini Aydara bu Ziguinchor dina ñëw ci bis bi incha allah rabbi ñoom ñëpp woo nañ ma jox nañ seen kàddu nañ ñëw ci bis bi loolu laa fàtte woon moom laa ci doon dolliwaat. ok asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw maa ngi maa ngi soññ aussi sunu dëkkandoo yi sunu waa koñ bi surtout maam Diédhiou ñu ngi lay soññ yaag euh, euh, mbokku soose yi nga xam ne ñoo nekk ci secteur bi yëpp président Fat jaata maa ngi lay soññ ci bis bi te bëgg naa nga teew ci euh, Ndeye Fatou dafe ñu ngi lay soññ ak Fatmata Faye ñu ngi leen di soññ Matar Ñan ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay invité ci bis bi ndax danga bokk ci muxaddamu El Hadj Malick Sy yaa ngi bokk ci sañ Sofi maam Sofietu Ñang ñu ngi lay invité ci bis bi Oustaz Diouf maa ngi lay invité ci bis bi ndax yow da ngaa bokk ci daayira bi daanaka yow yaay sunu porte parole waaw di woo nag imaam yi nga xam ne ñoo nekk suñ quartier bi yëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi pour ñu ñëw jëmmal ñu ci bis bi jàppal ñu ci bis bi taxawuñ ci bis bi te soxla nañ ko lool ñu ngi leen koy ñaan ci barke sëñ Babacar Sy mi ñu koy defal waaw maa ngi wokk samay maa ngi woo sama mbokk yi ñi nga xam ne ñoo nekk jàmm gën waaw li sama famille Ndioufène maa ngi leen di woo di woo abdu Dione ak famille am famille nduureen maa ngi leen di woo ndax waa nduureen sax dafa nekk ñoo xam ne dañ leen war a jagleel sax invitation d'honneur ndax ñoom dañ leen soxla ndax baay Assane Ndour ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp di woo ñoom famille sama waa sama bi nekk jàmm gën yëpp ñu ngi woo ñëpp dañ ñëw may woowaat karitas jàmm gën mi nga xam ne euh, Pape Gueye mooy président bi ñu ngi leen di woo pour ngeen ñëw ci bis bi euh, président joxoon naa ko invitation d'honneur mook waa Caritas jàmm gën ñëpp soxna leen ngeen teew ci bis bi di woow ñi nga xam ne moom mooy waa euh, sopp sopp soxna Aïcha parce que wax nañ ko mais dinaa ko waxaat sopp soxna Aïcha dama bëgg na ngeen fa daan ñëwee ngeen def ñëwaat noonu taxawuñu ci sunu bis bi di fàttaliwaat mbokk jullit yi ne bis bi le 3 la euh, allah le 3 février lañ koy def en face école 3 programme bi nak comme niñ ko waxé kamil bi ñu koy def 9h ci jakk aladju bu saxo buñu paré ci lolu 17h le programme bi di commencer ba 23h lolu lay fàttali mbokk jullit yi di ko wat pour kenn bañ ko faté votre chaîne Ngeko TV. Ngeko TV, c'est une chaîne télémédia Bilen Pour vos reportages, les émissions, couverture médiatique, vos publicités, Ngeko TV, Indil Nalen Lubes. Avec une équipe pétrie de talents médiatiques. Ngeko TV, un autre élan de la médiation sénégalaise. Partagez et abonnez sur votre chaîne Ngeko TV.